cëy barki Serigne Badiou jërëjëf Thioune jërëjëf Thioune jërëjëf Thioune oh waaye yéen a ngi gis soxna bu doon Saliou buntum soxna Aïda Saliou bi waaye boobaak léegi ñu nekk ci organisation bi taxawuñu barki Serigne Badiou boobaak léegi def na ay weer ñi ngi ci organisation liggéey bi ñu ngi ci lépp ñu moo waral lii ngeen gis sang si seen loxo la ko teg buntam bi soxna Bodor ak soxna Adja Saliou ñu taxawee ko taxawaay bu rafet barki Serigne Badiou waaw jërëjëf Thioune waaw waaw cëy waaye ñii bu ñu liggéeyal seen sang bég mi ñuy àndal kéemaan la jërëjëf Thioune Serigne Badior barki Serigne Badior cey waaye lii daw na yaram barki Serigne Badior yéen a ngi jàkkaarloo noonu sang bu tedd bi soxna Aïda Saliou ak buntam bi soxna Adja Saliou Thioune waaw booba léegi mu nekk ci organisation bi ànd koog soxna Bator waaw taxawuñu lii ngeen gis ci kër gi yëpp sang bi seen loxo la ko teg ñoo ko organisé ba fii ñu toll barki Serigne Badior taluñu dara amul guddi amul bëccëg saa su ne ñu ngi taxaw temb ngir ku tedd am li mu bëgg am amee ko ni mu ko bëggee waaw barke Serigne Béthio moo tax gis ngeen résultat bi moo nekk nii ngeen jàkkaar lool waaw jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio waaw yéen a ngi koy gis mi ngi ay kàddu mbégam ak ay kàddu cantam